mel ni euh, peut-être du doon bëri jeexital torop ci ci euh, ñi nga xam ne ñoom mu ngoog loolu lu solo la euh, boo xamante ne nag jamono jile Birahim mu mel ni ba tey Barça wala Barça gars teg teggeewuñu seen tànk teggeewuñu seen tànk te li nuñ doon njortu sax dafa am soppeeku xam nga je parlais ici de du cas ou de cette nouvelle route du Nicaragua pour dem USA mm-hmm. yaa y a le quotidien Les Échos, il y a également Walf Quotidien hmm. qui reviennent sur 140 Sénégalais au moins yoo xam ne ñu ngi woon jaar nañu ci yoon boobu lañ jaar dugg Nicaragua ba ñu ngi États-Unis hmm. ñu rapatrier leen États-Unis la ma waxoon mooy première chose comme ñoom ku ci nekk perte nga 3 millions ba 3 millions 500 yi nga dugaloon. Hmm. pour dem Nicaragua ak coono yi nga daj pour dem Nicaragua pour mën a fël dugg dem États-Unis parce que di nga dem euh, ci yenn xibaar yi ñuy jox. Euh, agence da ngay dem normalement. Mhm. dugg avion doo dugg gaan waaye avion ba dina fu nekk daanaka dañ fa escale di nga taxaw fii duggaat beneen avion taxaw fii total bi daal di nga duggal lu tolloog 3 millions 500 pour mën a àgg Nicaragua. pour ensuite ñu mën laa seet nu ñu lay lijjantalee ba nga romb. dem mhm. ca États-Unis waaye nga dem ba États-Unis ñu duggalaat la ci avion ñibbisi. finalement c'est kat mooy perte sa 3 millions 500 yooyu da nga perte boo ñibbisee fii xam ne lay jox. peut-être bu doon nangu nañ say yére sandwich lañ lay jox peut-être dix mille francs ne la paasal. Mhm. bu dee Ziguinchor nga jóge woon ñëw aéroport Léopold Sédar euh, euh, Blaise Diagne dix mille francs lañ lay jox bu ñu xool ndax Ziguinchor nga jóge wala Kafountine nga jóge wala feneen foo mën a jóge dix mille lañ lay jox ak sandwich tu perds trois millions cinq cent yoo xam ne peut-être mënoon na la jural dara il faut que l'État du Sénégal mhm. que les Sénégalais de manière générale mm. taxaw benn moment pour poser la question c'est quoi le problème et pourtant on nous annonce du pétrole du gaz on nous annonce presque benn genre super richesse bu nar a ñëw ci biir réewum Sénégal à traverser euh, muy pétrole muy gaz ci ressource mais les gens se posent des questions est-ce que ressources yooyu du indi safaan yi puisque tey ce qui s'est passé à Saraya il y a mhm. pourtant am nañu ressource mhm. Sabadola maanaam yow da ngay yore benn kër goo xam ne néegu ñax la. Mhm. ñu ne la pourtant suuf si yëpp or la. ça veut dire que ñi dëkk ca Sabodala. Mhm. ñoo gën a ndóol. <laughs> alors que c' est l'une des régions. si mhm. buñ koy xool muy Kédougou muy Sédhiou muy yeneen les plus riches du Sénégal. est ce que c' est à l'origine aujourd'hui de cette euh, envie des Sénégalais des jeunes Sénégalais et même des moins jeunes et même des femmes maintenant. de prendre la pirogue ou de prendre en tout cas le chemin de l'immigration pour génn réew lan moo ko waral. ce de des questions yoo xam ne foog ñu toog waxtaane ko na ngay toogee di waxtaane ni diw war naa bokk Karim dina bokk politique ci élection wala xalifa dina bokk ci élection nga woo ñëpp ñu toog ca palais présidentiel ba pendant deux heures trois heures quatre heures de temps ñuy waxtaane mbirum ay benn benn benn nit mais jar na nga woote sénégalais yi ñu waxtaane loo xam ne mu ngi concerne des milliers de sénégalais mmh. parce que quand même les chiffres lu ñuy wax ci lu jëm ci wàllu immigration clandestine un journal qui te dit que du entre le 4 et le 14 ou le 7 et le maanaam ci fukki fan fukki pirogue ak ñett génn nañu réewum Sénégal pour dem Espagne en 10 jours ça veut dire que chaque jour mooy minimum bi y a une pirogue qui quitte le Sénégal les côtes sénégalaises pour jéem a dem te ñu ne la pirogue bi ci gën a néew li muy yàpp ci nit cinquante personnes la am na yuy dem ba cent person mhm. ou un peu plus entassé ci biir ak conditions yu nekkee ñu ne la diw laataa ñuy àgg sax am na ñuy faatu am na ñu dof ñuy wax la ne la am na jigéen yu nekk ci biir pirogue yi ñu leen di siif. Mhm. ci biir pirogue yi parce que peut-être durée bi ñuy def ci géej gi yàgg na. Mhm. dañ ci am ay ñu xaw a dese seen xel. ñoo xamee ni opportunité la ñuy gis euh, peut-être na ni xaaral. ñu jéem a wut luñ ciy bànneexoo yooyu yëpp am ci biir pirogue. pour moi le plus important au-delà de la politique gis tous les hommes politiques là yi ci élection présidentielle mmh. ne peuvent pas moi citoyen sénégalais me donner des réponses mm-hmm. à mes questions concernant l'immigration concernant le devenir des sénégalais mm-hmm. moi je me que euh, politique pour politique la dañuy wax rek waaye duñ duñ dara luy mën a mm, soppi lii situation mm-hmm. ñu wax ci wàllum euh, tàggat yaram la mission ak sport bi ci manifestation bu f nga xam ne nañ ko rassemblement place de la nation ñu ñu autorisé 15 heures euh, ñu gis ne F24 nag euh, Birahim euh, def na 6 peut-être yoo xam ne déposé nañu ko ñu lànkal leen ko bu mujj bi yàggul li ñu sàkk bokk na ci jëm ci wàllum ñu libere yenn détenus yi nga xam jàpp nañ ne ay détenus politique lañ mais également démocratie peut-être ñu jàpp ni amatul ci réew mi mm-hmm. mu mu mais li nga xam ne mooy autorisation bi est xaaroon nañ ko bon euh, man nag gis na ci autoriser mhm. wala bañ a autorisé. Mhm. man jàpp naa ne li constitution bi wax mooy manifestation da nga ñëw déclaré ko. Mhm. ñu encadré ko mais ñii di autorité administrative ñoom ñooy am peut-être les les les euh, nu ñu koy wayte les éléments pour ne ni. dañ ko nangu wala duñ ko nangu selon la période. Euh, par exemple ñu ne màggal. deux jours a des wala trois jours a des wala situation bi euh, compliqué na compliqué boo xam ne ni euh, tension bi yéeg na yéeg boo xamee ni boo fi autorisé manifestation peut-être mun na jàll pacifiquement ñoom ñi koy organiser mën nañ ko def pacifiquement mais mën nañ leen a rax bu mu indi beneen situation mhm. man du ma ci commentaire parce que autorité administrative bi mhm. moom moo am sañ-sañu ne ni d'accord constitution nee na la am na sañ-sañu manifester da ngay déclarer rek ndax lu ñu wooyee régime déclaratif la mhm. waaye ca la ma gis aw ma mhm. takk der yu doy mhm. wala amu aw ma euh, fii ñu toll nii situation bi fii nga bëgg jaaree du yoon ndax foofu am na ay travaux wala am na ay yeneen kii euh, on peut ne pas d'accord sur le le le le fait de ne pas autoriser les manifestations il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas d'accord ci Euh, prétexte amuma suffisamment de policier wala de gendarmes parce que boo nee awma suffisamment de policier wala gendarmes pour encadrer la manifestation bu dee ñaari nit ñooy manifester laa nga fay teg ci policier ak gendarme daanaka mooy ëpp donc euh, ñenn ñi nee nañu loolu ce n'est même pas en prétexte mais euh, comme on les a on a autorisé la manifestation du F24 euh, ou de la F24 lan la sax force la Euh, F24 daal seen manifestation boobu. Mhm. xam nga lan may wax bi mooy. Mhm. il faut que ces mouvements la sortent de la chose politique politicienne. Mhm. bu ñu bëggee Sénégalais yi tontu leen wala ànd ak ñoom. mu bañ doon mbirum boo xamee ni ay nitu politique ñooy nekk ci biir mouvement bi ñoom ku ci nekk di prêcher pour ta propre chapelle mais pas pour l'intérêt général. te malheureusement de plus en plus mais ñu ngi koy waxee sax société civile boo xamee ni da dem ba. yenn ci société civile bi nekk ci réewum Sénégal c'est plus une structure politique qu'autre chose parce que dañuy militer diw wala dañuy waxal diw te bu dee am na situation yu am ñu wax cee wax duñ ci wax tey j'aurais compris que le F24 parle de l'immigration clandestine parce que seen benn wax moo nekkoon seen coow moom moo nekkoon seen lépp mooy non troisième mandat romb nañ loolu mhm. léegi nañ wut leneen lu ñu wax euh, détenu politique qui est détenu politique qui ne l'est pas am na ay jéego yoo xam ne ñenn ci société civile ñu ngi koy def sur ce plan. Euh, c'est c'est ñoom mu jaay si sëg yooyu am na ñuy jot a génne am na ñu génn avant le màggal. am na ñu génn ci diggante bi. foofu laay xaar société civile foo xamee ni état moom doo xeex moom da ngay négocier ak moom waxtaan ak moom seet nooy lijjantee ak moom parce que moom moo am lépp moo am doole moo am justice moo am takk der moo am lépp am na fooy toll foo xamee ni ñu ñëw toog waxtaan ak moom ne ko nag lii laa bëggoon. Mm-hmm. est-ce que nan la lay doon condition yi F24 fi ñu war a teg seen tànk fi ñu toll nii. Mm-hmm. mooy bañ a jël mbir mi politiser lépp. Mm-hmm. ba nga xamee ni parce que benn moment sénégalais yi nag coolee bari mais euh, dañoo doyal ci politique. d'accord ñu jeexal très rapidement sama ak sport. yéenekaay bii di stade dafa dellu waat ci jongante Sénégal ak Algérie bi nga xamante ne xewoon na ca euh, stade